waaw salaamaaleykum mbokk yi mbokki Tëngéej mbokki Sénégal yëpp maa ngi leen di nuyu di leen baalu àq ci koor gi ñu jóge di leen baal di ñaan yàlla yàlla may ñu fekke ko at yu bari di ñaan yàlla liñ ci jàmm yàlla na ko suñu borom nangu li ci ay rëcc rëcc it yàlla nañ ko suñu borom jéggal di nuyu waa Tëngéej yëpp di nuyu waa senegal yëpp di nuyu àdduna bi yëpp. di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw bi euh, Mbaye Jacques Diop créé partem bu ñuy wax PPC moi j'étais le coordonnateur bu département bi département de Rufisque yëpp ma ànd si ak ay soxnam ak ay équipe bu ma boole loon ñu si doon travailler ñoo si travailler ba législative yooyu yàlla defal ko si ndam li mu bëggoon bon en 2007 ma bokkoon réew mi nekkoon au man ak ku ñuy wax Ndiouga ñu jàppale Idrissa Seck en 2012 ma nekkaat réew mi ànd ak ku ñuy wax Ndiouga ñu jàppale Idrissa Seck même bi muy def euh, investiture yi ak Guédiawaye man sama mbopp mobilisation def naa bi ëpp doole à Rufisque man maa ko defoon parce que yóbbu naa trente et quelques yoo xam ne maa ko mobilisé jour boobu pour ñu dem Guédiawaye bi ñu demee en deuxième tour la Idi ñëw ànd ak Macky pour ñu fal ko parce que ne woon ku nekk deuxième rek ñu si des dañ lay jàppale. safla en 2014 way ñu dem élection locale élection locale yi ñun ñu créé woon une liste mais man si liste bi bon presque maa defar liste est liste ouest liste nord mais man bokkuma ci woon bugguma woon bokk nekkuma sax sur les listes pour nekk conseil municipal. bon en un bon moment tamit gars yi dañ ñëwoon na ma léegi comme yow bokkoo ci trois listes communes yi léegi demal département bi. ma ne la non nañ seet keneen ku dëkkul Rufisque comme Bargny wala feneen ñu jiital ko ci liste bi noonu nañ def ba yàlla defal ñu sutura on avait cinq conseils en ville on avait sept conseils au nord deux conseils à à à à l'ouest deux conseils à l'est sept conseils au departement kon euh, ñun suñu participation en 2014 je crois que ne amoon na njariñ waaw léegi nag. mais man musuma ci bokk man noor laa noor laa dëkk kon defe naa bu may nekk candidat candidat noor laay nekk mais pour le moment comme ville bi xamuñu nu muy demee parce que dañ ne raw gàddu la mais ci raw gàddu bi kenn xamul ville nu muy demee xam nga élection lay yële passé ville amul woon amul liste dañ def ñetti communes yi rek pour ñetti communes yi ku ci ku ci ëppale da ngay jël sa conseiller ñu tase ville pour que conseil municipaux yooyu ñooy voté ku ñu votel rek yow yaay nekk le maire de la ville mais bu dee raw gàddu xam nga loolu dootul amati léegi nag xamuñu ndax dañuy créer beneen liste pour ville wala dañ naan trois communes d'arrondissement yi ku ci ëppale au niveau de Rufisque yaay gagné commune boobu ba pare yoraat ville dama ne xam nga ñun dañu jóg pour joŋante du dëgg dañu jóg pour joŋante te boo jógee pour joŋante je crois que ne euh, euh, da ngay wax ne lépp loo xam ne par exemple Euh, ndombal tànk la boo xam ne élu yi ñoo koy joxe dangay ngay tàllal sa loxo pour ñu jox la ko du dëgg élu nañ bëgg a doon mais pour nga doon ko il faut population yi ñoo lay fal léegi nag comme ñun xamaguñu ndax pour le moment ñu ngi noor di travailler au nord bi ñu bokk mais bu fekkee ne ville dafay am liste à part boobaa dinañ waxtaan ñun ñu ànd ñu seet que mais bu fekkee ne dañ ne trois communes d'arrondissement yi képp ku ëppale au niveau de Rufisque yow yaay jël commune boobu ba pare dem ville bu boobaa it ñu xam mais daal am na ñu bari ñoo xam ne non man pour le moment euh, xam nga dama bokkoon si euh, euh, Benno Bokk Yaakaar si élection 2019 bi man dama dem jàppale la président de la république bi ma koy jàppale mu recevoir ma ñu toog waxtaan mu wax ni dafa bëgg pour ma jàppale ko ma ne ko dinaa la jàppale parce que même boo ma owul woon dinaa la jàppale parce que dafa am benn kilifa. boo xam ne suma sëriñ la suma lépp la dafa ma woowoon ba ma ñëw mu ne ma dama bëgg nga jàppale président Macky Sall ma ne ko dinaa ko def. jële dix la ma woo mu ne ñu ne ma vingt une président la na nga ñëw daf la soxla. ma demee ñu toog ñu waxtaan mu ne ma dama bëggoon nga jàppale ma à Rufisque ma ne ko non y a aucun problème parce que man jëloon naa engagement si suma kilifa googu ma leen di wax ba pare te yàlla xam na ne du ma ci dellu ginnaaw président de la république moo bëggoon léegi nag. dañu toll ci élection yoo xam ne local la te local yi incha allah dafa bari ñu dëkk Tëngéej ñoo xam ne bu ñu sañoon man ma nekk candidat dañ ma ci topp à chaque fois di wax may du woo xam ne man dama ko bëgg nii wala ma tëb sàkk woon ko pour rek nekk candidat non dama gis ne am na ñoo xam ne vraiment pour ma déposer sama candidature daf leen jaral lu ne kon j'ai dit que ne man candidat lay doon mais daal ñun élection 2019 yi président de la république nañu àndaloon Macky Sall jàppale ko si élection yi ba yàlla may ko ci ndam ku ne gis na Rufisque li mu am résultat yi mu am ci élection yi waaw te élection yi jiitu yooyu muy deux mille 2014 trois communes yëpp ak ville ñoom dañ ko perte dañ leen gañe nord gagné leen est gagné leen ouest nord bi ñu nekkoon ñun Badara Mamaya Sène était premier ñun on était deuxième sans coalition Badara avait 18 partis yu ànd ak moom ñun amuñu benn parti bu ànd ak ñun on était suñu première élection locale ñu dem ci yàlla defal ñu ci ndam parce que ndam bi mooy Badara amoon na cinq mille et ñun am nañ trois mille six cent soixante trois voix au nord kese so ak li ñu am est ak li ñu am ouest boo ko boolee day dem cinq mille et quelques que Badara bi muy gagné en 2009 Ndiawar Touré il avait huit mille et quelques voix gagné ñun bi ñu ñëwee ñu dem élection presque huit la huit mille am yooyu ñun ñoo jëlee trois mille six cent moom mu desee cinq mille et am vingt quelque quelques loolu moo tax mu perte ville bi conserver euh, euh, nord bi parce que euh, en élection locale moom nit ki liste bi bu fekkee di la ëppalee benn carte sa wala ñaar moom mooy jël conseillers yëpp yu nekk nord mais teewul ñun amoon nañ fa sept conseil quoi. waaw xam nga dëngee ñun ñëpp ñoo ko bokk. ñun ñëpp ñoo bokk tëngéej bu ñu sañoon tëngéej dafay baax dañ koy defar mu bokk comme yeneen dëkk yi man à chaque fois damay wax ne man yàlla def na euh, ma teel a dugg ndakaaru di ànd ak sama waajur sama waajur ma daa ànd ak moom di dugg ndakaaru xam diggante boo jógee woon Dakar ni Pikine meloon ni Géejawaay meloon ni Caaroy meloon ah ba keroog ngay yegg si tëngéej mais j'ai dit dama koy wax gars yi des fois ma ne leen gis nga Tëngéej bi muy nekk commune boobu Pikine ay tool la booba Géejawaay ay tool la booba Caaroy ay tool mais léegi boo xoolee ñoo ñëpp dañ raw te raw boobu ñu ñu raw je crois que ne waroon na mën a ñàkk mais loolu yëpp li ko indi ñàkk a taxawaay. xam nga Tëngéej toll woon na temps boo xam ne sax mën nañu wax ne tubaab yi defaroon nañ ko comme ni ñu defaree woon Saint-Louis defaree ko Gorée defaree ko Dakar. dafa desoon ñu koy entretenir di dëgg mais caniveau yi fi nekk canal yu mag yi kan moo ko defoon du tubaab yi boo xoolee maison de euh, euh, tribunal bi ñu nekk ñun actuellement tribunal bi nekk Tëngéej tubaab yee ko fi tabaxoon boo xoolee la nekkoon foofu yëpp tubaab yi ñoo ko fi defoon mais boo demee saint bi dañu conserver loolu ba pare jéem ko gën a moderniser waat du dëgg fexe ba defar route yi ba defar trottoir yi fexeel ba defar éclairage public bi hmm? ba Saint-Louis amaat beneen xarkanam boo demee euh, gore actuellement dañ ko defaraat ba nga gis ne Gorée y un changement mais ñu ngi maintenir la fa nekkoon Ndakaaru noonu mais Tëngéej rek si quatre communes yi Tëngéej rek moo ci dee complètement parce que boo xoolee li fi nekkoon entretenir ñu ko créé wu lu bees amu fii man damay wax à chaque fois bu ñu benn maire dimbalee woon lenn rek boulevard bii ñu am mu commencé fii si juuti bi dem ba bata bu ñu benn maire di woon rek defaral ñu ko d'une façon ba nga xam ne ku fi romb xam ne lii c'est une ville ñun suñu xol dina sedd mais kenn defaru ko canal yooyu fa nekkoon ba tey ñu nga fa làmp yi léegi boo fa jaaree guddi sax du tàkk hmm? on a des problèmes léegi man nag mënuma d'accord lenn dimbaliwuñu nit ñi defaruñu dëkk bi mais loolu c'est grave ñaar kay day am ñu ne ñii bon mënuñu mënuñu mënuñu defar parce que vraiment li ñu li si ëpp dañ ko dimbalee nit ñi wala boog dimbaliwuñu nit ñi mais defar nañ du dëgg lii ñëpp bokk defar nañ ko mais man gisuma dama gisul loo xam ne man wóor na ma ne actuellement gars yi def nañ ko fi ñun ñun ñu war ko mën a tiitaroo ñun waa Tëngéej gisuma ko gisuma ko loolu moo tax ku mel ni man ku mel ni keneen bëgg ñu am taxawaay pour que au moins Tëngéej mën a changer xar kanam. waaw xam nga ma wax la benn affaire bi ma toogee président de la république ba wax ko ne que dinañ la jàppale dama ko si tegal ne que di ñëw bàyyil xel si Tëngéej dinañ ko gagné largement ci l'ai dit dama osé wax ko ko ma ne ko nag mais man en retour man bugguma dara bugguma poste bugguma xaalis bugguma carburant bugguma oto. lépp lu ma lay campagnale sama propre moyen lay doon te dinaa ko def pendant durant campagne bi yëpp mais li ma bëgg en retour mooy bu ñu paree booy defar nga boole si Tëngéej nga dimbali ñu jàppale ñu defaral ñu Tëngéej parce que nag am na fa loo xam ne tamit maire yi fa nekk bu nu ñu ko def qu'on se dise la vérité mais am na loo xam ne président de la république moo ko war a mën a def ñu koy ñaan pour mu defal ñu ko loolu laa ko waxoon du dëgg mais xam nga am dafay am ay nit ñoo xam ne Euh, des fois ñooy war a wax mais du ñu mën a wax parce que dañu bokk ci parti bi boo taxawee kaas ñu ne ah mu ngay ñaxtu wala fi mu nekk nii mu ngi attaqué le gouvernement mais am na nit ñoo xam ne suñu genre yi nga xam ne ñun bokkuñu ci gouvernement du duñu élu ah lenn moo ñu si dugaloon ñëw jàppale le président de la république ñun am nañ sañ-sañu pour na ko non président defaral ñu loolu am nañ sañ-sañ bi ne président mu ne ma naam ma ne que ñu ne ko defaral ñu dag ñu war a defaral du dëgg parce que dañu bokk waxuma la sax si buñ ko élire woon sax buñ ko gañe woon Rufisque sax dafa war a defar Rufisque waxuma la ak mu gañe Rufisque largement kon donc ñun li ñu bëgg daal ak li ñu tax di sonn mooy pour ñu defar Tëngéej pour ñu jéem a changer bokk ci dëkk yi nga xam ne ñu ngi dem ci kanam du du question sax ku gañe Dakar gañe nga lépp parce que mën nañ la gañe Dakar nga gañe ah parce que élection présidentielle gis nañ ni mu fi deme ay yoon yoon du dëgg mais gars yi boo gisee ñuy xëccoo ñuy xëccoo dakaar xëy na mairie dakaar tamit dafa doon mairie boo xam ne tey boo ko gañe woon ba yor ko faale woo benn poste ministre du dëgg nee naa la gars yi dinañ xëccoo di naan la damay dama bëgg a defar dama bëgg a defar mais bëgg defar rek taxu leen jóg di non c'est juste la vérité bëgg mais mu ngi ci biir bëgg nañ defar am nañ intention pour defar mais nag des fois am na lu leen di tax di rayante gis nga à Rufisque élection 2014 yi ñi nga xam ne ñoom la fi APR tegoon muy Benno Bokk Yaakaar sax nañuy wax mais dañ leen gañe xam lu tax ñu gañe leen parce que des fois tànnin ba moo dul baax da ngay fekk koo xam ne xëy na si kaw xam nañ ko fa mais fii si base bi ñun xamuñu hmm? ñu xëy jiital nga ñëw waa te ngay sanctionnal waaw waaw nord ñi fi nekkoon dañ leen sanctionné ils ont venu en troisième position te loolu c'est grave ah te un un un un ministre nañ jiital plus un ancien directeur bu ji yoroon benn kii bu mag au Sénégal moom lañ fi teg ñu jiitu mais dañ leen gañe xam tax ñu gañe leen parce que local nit ñi xamuñu leen nit ñi bu ñu amee seen i jafe du duñu leen gis. suñu feebaree duñ leen gis suñu amee seen dëj duñ leen gis suñu amee tiis duñ leen gis su tabaski jotee duñ leen gis su korite jotee duñ leen gis su tamxarit jotee duñ leen gis bu màggal gi jotee duñ leen gis bu gàmmu gi jotee duñ leen gis kon boo toogee ba campagne jot nga ñëw dugg ci dëkk bi même boo génnee de l'argent gars nañ ko lekk mais duñ voté pour yow loolu il faut que les responsables bàyyi xel ci loolu moo tax gox bu ne nañu seet ka nga xam ne buñ ko jiitalee wóor na leen ni dina dina dinañ am résultat bi ñu bëgg ñu jiital ko fa loolu moo am solo mais leneen lu ñu def lu dul loolu rek dañuy passer complètement à côté te dinañ gis conséquences yi. non sama dernier mot d'abord mooy di leen di leen di leen remercier si euh, déplacement bi ngeen def ba ñëw seet si ma pour ñu waxtaan te def naa ne li ñu doon waxtaanee nii am na solo trop muy ay élections yoo xam ne dañ ci war a jëm ak mbir yoo xam ne dafa concerner réew mi. dëgg kon bon ñu leen di sant di leen gërëm di wax ne ñu fi wax ñun su fekkee dafa am lenn lu si dëng ñu ngi koy jéggalu lu ci jubit ñu ngi koy sant yàlla te xam ne yàlla la mais daal euh, maa ngi ñaan waa Tëngéej élection yii ñu jëm mais y a des gens yoo xam ne def nañ fi 12 ans 12 ans parce que dañu am deux mandats de cinq ans yàlla def ñu dolli leen deux ans muy muy muy muy douze ans mais actuellement defuñu la woon dara. tey ñu ngi jéem a góorgóorlu ah parce que dañu dem élection ci temps bu néew ñu bëgg a euh, pour ne dañuy jéem a nax nit ñi mais nit ñi war nañ dépasser foofu war nañ dépasser loolu nit ñi dafatuñu du dëgg dañu ab xool dañu dañu xool dañu absenté ci ci ci territoire bi dañu absenté si localité yi ba ñëpp xam ne ñii dañu absenté waaye léegi nag ñu bëgg a toog ba nga xam ne ñu ngi dem élection dans six mois ñu bëgg a occuper terrain bi mais il se trompe dañuy nax seen bopp. dañuy nax seen bopp kon ñu ngi ñaan waa Tëngéej pour que élection yii di ñëw ñëpp nag laa wax kenn ku ne am si fulla am si fayda am si taxawaay yi pour que li ñuy jooy à chaque fois pendant des années ñu fexe jéem ko saafara loolu maa ngi koy ñaan waa Tëngéej di ko ñaantam tam yi nekk si Sénégal yëpp pour fépp foo xam ne maire yi mu nga fa commune mu nga fa hmm, ñañ fay tànn nañ leen xool xam nga tànn ba pare di jooyaat pour cinq ans fexe ba ba ngay tànn nga tànn lu baax xam nga même buy bu bu nawet jotee nii buy bu buy taw nga war a ji mais boo boo tegul sa jiw nga tànn ko dindi yu baaxul yi sànni ko jël yu baax yi ji ko bu nit ñi góobee doo góob di waaw bu nit ñi deqee doo deqi kon donc tànn dafa am solo ñu leen di wax ne nañu xool bu baax ñi ñuy tànn ñan la waxuma nag nañ ma tànn waxuma nañ tànn diw mais damay ñaan. Rufisquois yi ñu xool ñuy tànn bu ëllëgee ñan pour ñu teg leen six suñu kanam communes yi pour ñu mën ñu ko doxalal loolu daal laa doon wax di nuyu ñëpp di sant ñëpp di leen sant di leen gërëm di nuyu waa Tëngéej yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di leen ziar di leen balu ax di leen ñaanal yàlla jàmm yàlla nañu ko yàlla boole defal.